su ma jugee ci loolu damay ñëw ci Balla ak Bombardier keroog gis nañ stade bi ambiance ba mu fa andi keroog bokk nga ci ñi nga xamante ni nii bokk nga ci ñi ko dalal jàpp ci loxoom yóbbu ko euh, te combat bi demaayagul yaakaar naa boobu mooy seen premier jàkkaarloo naka ngeen na àndee Balla Gaye te su ma juumul Bombardier mooy ki nga xamante ni moo jëloon roi des arènes bi ci yéen bi mu koy jël nee ngeen da ngeen feebar nee ngeen da ngeen nangam maa ngi dégg tamit yeneen kàddu yoo xam ci yéen Bombardier dafa feebar nangam nangam naka ngeen entame nañu boobu combat. waaw man damay ñaan promoteur yi ak waa CNG Gaston amateurs yi ñoo ma yónni ci yow ak ñuy dund làmb tuul Balla Gaye bi ak Bombardier ji dafa sore trois mois yi comme un an dama bëgg a date yooyu nga xam ni am na yeneen promoteurs yi ko am di say jarbaat di say rak nga wàcce làmb ji ci deux mois yi li des ci deux mois yi pour fii deux mois Balla Gaye ak Bombardier ji ñu bëre ndax suñu bëree naqaru xol yi dana jeex ndax ñaari jàmbaar ñooy daje mais may wax rek ni Balla Gaye ku ne xam na ni mbër mu mu dajeel dana wax ak yow mais bu bëree ak yow ba pare pare na ci est-ce que yaa ngi may dégg. may ñaan rek promoteur yi ñoo ñu am date yi nga xam ne ci deux mois yi des la ñu jéem a jàppale Gaston bu fekkee ni c'est possible arrangé na mbër yi arrangé na ménagères yi. bon ñu mën jéem ku tëgg fii deux mois mais trois mois yi day indi stress bu métti. ci amaat ba da ba da ngeen a jékku moo tax ngeen wax loolu bëgg xëcc date bi. xam nga làmb yàllaay borom xam nga ñun ñu ngi wax waxi làmb mais tatu làmb ji yàlla mooy suñu borom moom moom adduna bi moom suñu roo moom bis ba ñu ngi koy ñaan yàlla mu may nu nu fekki ko ay ati at dem ba màggat ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla farag ñun mais Bombardier mbër mu yaru la mbër mu baax la. mbër la moo xam ne bu mu duggee ci làmb ji ba léegi yar ak teggin la woon ñëpp nekk koo xam ni ku ko jël ba ngay bëre moom ba mu lay daan wala nga di ko daan doo dégg ci làmmiñam lu ñaaw mais maa ngi koy jox benn conseil Bombardier jarul muy entraîner jarul muy jël xaalisam di wuti sëriñ mais nag maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla farak ñun bis bu yàlla farag ñun Bombardier dara jotu ko dara jotuma ma indi état yàlla farag man ma jàngal ko bëre loolu laay wax ba nga laaj ma leneen. non li ngay wax nii li ngay wax nii da nga da nga da nga da nga bëgg affaire bi yomb ci yéen wala parce que yow boo ñëwee ne nañ xëcc nañ xëcc combat bi dat bi ne bu mu dem ci sëriñ bu mu entraîné da nga bëgg combat bi yomb ci yéen. wax jooju dootuma ci tontu pare naa ci laaj ma leneen. <laughs> gis ngeen wasaare <laughs> lii de feeg la xew am sa mbër tagg ko jël mbër mee ne bu mu entraîné bu mu kii mais baax na